maître Massokhna kan ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay maa ngi leen di nuyu di nuyu seen auditeurs yi euh, di leen ñaanal yàlla def jàmm ci réew mi te musal ñu ci musiba yi am ak amin amin nga njiital SOS consommateur dañuy rek màggal bëccëg bu ñu jagleel euh, trois consommateurs yi yow naka nga jàngatee bés euh, bëccëg boobu ak lan ngeen ciy waajal. waaw bëccëg bi ci nuyu di ci félicité Euh, consommateurs sénégal yëpp quinze millions de consommateurs sénégalais yi ak ñi nga xam ne dañuy dund bii biir Sénégal te nekk ay consommateurs euh, di leen wax ni euh, bésu quinze mars béssu fàttali la ay droit wu consommateurs yi mais itam seeni devoir di leen ko ci fàttali di leen wax ni leen il faut ñu dajaloo dajaloo bi mooy ñoom ñëpp ñu ñëw ci association de défense de consommateurs yi adhéré ci pour que parce que mbooloo mooy doole bu ñu ñëwee dooleel association yi association yi bu boobaa danañu mën a défendre li nga xam ne moom mooy seeni droit ñoom seen devoir mooy ñu xam aussi seeni droit xam aussi seeni wareef seeni devoir donc loolu ñu ngi leen ñu ngi leen ci ñaax ñu ngi leen ci ñu ngi leen ci euh, soññ euh, di wax ni euh, at mu jot 15 mars dañuy choisir benn thème thème boobu euh, am na benn organisation internationale boo xam day jël benn thème mais ñun fii Sénégal comme organisation internationale boobu thème bi muy jël généralement du du duñu soxal du du du du nekk suñuy suñuy actualité du nekk suñuy réalité euh, ñun dañuy at mu jot dañuy choisir thème boo xam ne day concerner Sénégalais yi mm-hmm. thème ren bi nag dañu wax ni deux mille vingt dañu bëgg mu nekk atu médecine traditionnelle maanaam euh, fajkatu cosaan loi bi nga xam ni projet de loi la xam ne OMS wax nañu euh, organisation africaine aussi wax nañu que réew yi jël loi pour encadrer pour réglementer médecine traditionnelle boobu dañuy wax ni dañuy ñaan deux mille vingt nekk ak mi nga xam ni ci la Sénégal di adopté euh, loi ci médecine traditionnelle parce que loolu mooy tax ñu mën a protéger population yi ci euh, charlatan yi nga xam ne ci yenn garabu garabu yi nga xam ne bare nañ fi di def publicité bu doy waar boo xam ne bi dara du ci dëgg loi boobu rek moo ko mën tax ñu musulu ci lool moo ñu mën a fànq euh, ci lool donc loi boobu euh, dañuy ñaan vraiment gis nañ ni état bi yàgg na ci circuit bi gis nañ ni actuellement mi ngi assemblée depuis ñetti at mais gis nañ ni aussi waa assemblée jox nañu importance projet de loi boobu ñoom ñu ngi ciy liggéey ñun tam ñu ngi ciy jéem a ànd ak ñoom pour gën a pousse pour que euh, loi bi mën a mën a ñu gën ko defaraat pour mu mën a ñu mën ko wote mhm. loolu la ñaan parce que loolu mooy mooy njëriñu askan wi mhm. mooy tax ñu xam fajkat yi dëggantaan ñi nga xam ne am nañ xam-xam bi xam ni état bi dañ leen di tester jox leen ay agrément euh, population yi gis tableau bi nga xam ne ci sa seen tur ci lay nekk xam ni ku jot da dem ca tableau boobu ni ngay demee ci ordre des médecins ci ngay demee ci ordre des tradipraticiens xool ku ci nekk say spécialité ñu xam ne diw ak diw mooy faj lii diw ak diw mooy faj la lekk mhm. donc loolu la ñuy ñaan projet de loi boobu mu mën a jàll ci deux mille vingt mhm. ndax jàpp nga nii ni loolee dina nekk euh, donc euh, chose facile maanaam lu yomb gannaaw ba ñu gisee ne wàllum médecine traditionnelle nekk lu ñu réglementé fii Sénégal waaw ah, justement xam nga lu baax moom toujours lu yomb dafay jafe pour nga am ko mhm. mais itam da nga koy mën a wut parce que daf koy jar mais médecine traditionnelle comme ni ngeen ko waxee tant que amul cadre réglementaire boo xam day réglementé lépp day réglementé sax locaux yi nga xam ne moom lañ koy defee di garab yi niñ koy yoree cet gi ci war a nekk et tout mu xam ne dafa am ay textes yoo xam ni dafay réglementé lépp boo nee mën naa faj tel tel feebar dañ lay testé ba mu wóor ni mën nga ko faj ba nga joxe ay firnde yu wóor ni mën nga ko faj ñu soog la jox agrément ci feebar boobu pour nga faj ko xam nga bu boobaa nit ñi du ñu jóg rek ñu ne leen jiw mën na faj lépp rek ñu daal di jóg rek dem ci jiw moomu nga gis ñoo xam ni sax seeni malade dañ leen di génne ci hôpitaux yi di leen yóbbu ci ay garabu garabu yoo xam ni finalement des fois loraange daf ciy am. Mhm. te du ñu xam affaire bi nu mu demee. Mhm. donc loolu cadre réglementaire rek comme ni ngeen ko waxee moo mën a tax loolu am looloo tax ñuy gën a ñaax autorités yi te gis nañ ni waa assemblée nationale. ñoom projet de loi boobu ñor na leen te ñu ngi ciy liggéey mhm. ñun ñu bëgg accompagner leen ci loolu pour que projet de loi yooyu mën a jàll ci loolu daal dañu am yéene bu rëy di ci liggéey. d'accord donc ñu ñëw ba tey euh, ci consommateur sénégalais bi ndax euh, consommateur yi tey jii xam nañu seen àq ak seen yelleef euh, maître Massokhna. waaw seen àq ak seen yelleef loolu. képp ku ko bugg a xam wax dëgg yàlla di ko xam parce que muy internet muy lu mu mënti doon foo kii muy association de consommateurs yi koo ci dem dana la wax àq ak yelleefu consommateurs yi loolu defe naa ni euh, nit ñi ñoo war a am pasteefu rek xam seeni droit ak seeni devoir parce que droit yi bariwul juróom-ñett la juróom-ñetti droit la devoir yi aussi bariwul ay ñeent juróomi devoir la xam nga loolu yoo mën a xam mhm. donc ñun bëgg nañ ci lancé campagne mais nit ñi ku bëgg a xam sey droit droit yi droit sécurité la droit à l'information droit wu ñu déglu la droit wu boo amee euh, lu luñ la teg ci tort ñu mën ko réparer yooyu mooy droit principaux yi. Mhm. donc dañuy wax nit ñi vraiment nañu góorlu dem ci euh, association de consommateurs yi bokk ci parce que mbooloo mooy doole mhm. mais tant que ku nekk da ngay toog ci sa ruq di xultu a ah, ñu lay teg yoo xam ni mënoo ko fajal sa bopp te demuloo ci association mënoo dem tribunal parce que tribunal boo fay dem frais yi xëy na frais yi doo ko mën a supporter alors que bu dee da nga regroupé wu ci association de consommateurs yi xam ne dañu am seeni avocat Euh, yoo xam dañ leen di défendre souvent gratuitement loolu dafay tax mu gën a euh, défense bi gën a gën a mën a am résultat. Mm-hmm. tey jii euh, ñu wax ci wàllu consommation sénégalais comment est-ce que wala na jàpp nga ni sénégalais li ñuy consommer baax na ndax ñu ngi consommer li ñuy tuddee qualité. waaw balaa may wax loolu damay wax ni que ñun au niveau de SOS consommateur am na benn plateforme boo xam ne bii dañu profiter ci 15 mars bi pour lancer ko. plateforme bi plateforme mi ngi tudd SOS euh, alerte SOS alerte SOS plateforme la boo xam ne bi képp koo xam ne kii euh, am na ku la def benn toor mbaa nga gis benn jafe-jafe ci benn produit wala benn service comme téléphone wala électricité wala ndox bi wala yeneen ak ci lekk yi wala ci faj yeeg yëpp mën nga soxla boobu problème boobu mën nga ko yëkkati ci euh, plateforme bi plateforme yi euh, mooy SOS euh, boo ko seetee am na ci Facebook am na ci Twitter am na ci WhatsApp aussi euh, donc plateforme boobu moom la ñuy wax moom la ñuy lancer muy plateforme bu bees xam ne képp ku am sax xalaat boobu nga wax wala joytu boobu ga joytu mën nga ko joytu ci ci ci ci ci loolu mhm. donc vraiment loolu la ñuy baaxee nit ñi maintenant ci consomation bi mhm. ñëpp xam nañu Sénégal lekk yi ak naan yi yu ci bare day feebar ay nit mhm. loolu euh, fajkat yi xam nañ ko fajkat yi xam nañ ko toujours ñu wax ko gis ngeen tension ni mu fi bare gis ngeen diabète ni mu fi bare gis ngeen lekk yi diw yi ni mu bare toujours nit ñi lekk wala ñu naan wala sax ñu noyyi loo xam ne li daf leen di lor ndànk-ndànk donc loolu defe naa médecins yi wax nañ ko parce que mag ñi liñ daan fajo mooy dugub ju ñuul ndox mu ñuul donc loolu moo tax daaw am ay diabète daaw ñu am ay tension Mm. léegi nag façon lekk yi am il faut état bi aussi jóg ci il faut état bi jouer ci rôle bu rëy am ay laboratoire di analyser lekk yi naa am na lu am mais doyul mm. donc dañuy gën a ñaax état bi mu gën a kii di ñaax aussi nit ñu gën a seet seen lekk ak seeni naan parce que tout le temps dañuy lekk wala ñuy naan loo xam daf ñuy lor. Mm-hmm. beneen actualité muy mbas mii ñu tuddee coronavirus lëmbee àddina. d'abord damay masawu askan wi Euh, di leen wax aussi nañu def attention li nga xam ne mooy ay recommandation yoo xam ni état bi joxe na ko na ko ñëpp topp mooy setal sa bopp setal fi nga nekk d'abord mhm. et puis ngay moytu li ñuy wax prévention euh, maa ngi dégg oustaz Alioune Sall démb xamu barki démb muy wax ne euh, cet bi dañ ko war a nit ñi dañu war a gën a setal boole li ñuy wax prévention ak ñaan parce que ñaan yi am na solo lool euh, gis nañu Sénégal réewu ñaan la réewu diine la nit ñaa ngi ñaan waaye dañ ci war di boole itam recommandation yi nga xam ne moom la état bi joxe nii nañ ko topp euh, gaa ñu ngi am euh, commission boo xam ne bi mi ngi xalaat pour teg ay ay recommandation teg ay règles yoo xam ni day tax ñu gën a fegu ci feebar bi le mm-hmm. feebar bi àddina bi yëpp ñoom ñoo ko gis ni mu demee Sénégal nag euh, ñu ngi sant yàlla mais na ñu gën a góorgóorlu gën a moytu. day topp recommandation yi nga xam ne moom la autorité yi joxe. Euh, tey ji nag réew bu Sénégal ñu gis ne mbas mi mi ngi fi euh, ñenn ñi nag ñu ngi agité di wax nii tey ji suñu frontière dañ ko war a tëcc comme ñi nga xam ne noonu la ko yeneen dëkk defee bu ñu jëlee exemple ci États-Unis ak réew bu Maroc. tey ji ndax loolu mën na nekk lu yomb ak réew bu Sénégal ñu tëj suñu frontière maître. waaw xam nga li li li Maroc ak États-Unis comme ni nga ko waxee du loolu mooy Sénégal hmm. dëkk bu ci nekk dafa am réalité yoo xam ni ci la euh, dirigeant yi di di sukkandiku pour jël mesures yi ñuy jël hmm. donc ñoom seeni mesure ak ñun suñuy mesure wax dëgg yàlla mun a nekk benn parce que réalité yi du benn hmm. donc nañu xaar ba conclusion yi état bi di xaar mu jot ci bu ko defee ñoom danañ xam état dana xam ndax war nañu tëj lii wala ndax war nañu bañ a tëj ainsi de suite Mhm. donc ci recommandation yi daal ci la ñëpp war a wékku ñu ngi koy xaar. Mhm. bu amoon message booy lancé au peuple sénégalais lan nga leen di wax. waaw li ma leen di wax mooy nañu dal te gëm yàlla te itam euh, ñaan yàlla mu musal ñu ñaan yàlla yi nag defe naa ni euh, jéggalu yàlla ci la bokk parce que euh, ñoon diine ñu ngi koy wax ci prêche xëy na suñu bakkaar yi bare na xëy na suñu tooñ yi bare na tooñante yi aussi bare na nañu fóot xol gën a rafetal gën a jaamu yàlla gën a teg suñu bopp ci yi nga xam ne mooy santaane yi ñu ñuy diine sant donc defe naa ni loolu bu ñu ko defee yàlla dina am yërmande ci ñun nañuy dellu suñu bopp ci yàlla euh, ñu tuub yéenante jàmm fóot xol yi te topp ndigalu kilifa yi loolu lu am solo la topp ndigal dafa am importance mm. euh, comme ni ko olof yi di wax euh, bopp bu barkeel nopp yuy dégg moo ci sax mm-hmm. donc nañuy dégg recommandation yi mais bañ na rek euh, ku nekk lu ko neex lay def. Mm-hmm. maître Massokhna kaa ñu ngi lay jaajëfal bu baax. maa ngi leen di sant yéen itam. Mm-hmm. sant bu fàttali ne yaay njiital SOS consommateur nga ñëwoon nag doon waxtaan ak ñun euh, ci bëccëg bi nga xam te kii lañ ko doon màggal euh, tem jëm ci rek droit consommateur yi. jërëjëf maa ngi leen di sant yéen itam di leen gërëm mm-hmm. merci.